يلا على ايدي سايب الاخيار يلا الحمد لله في توفيق يلا على خديم رسول الله يلا وبسم ما قال محمد رسول الله مريدي ku yàlla buur ba raxmaan ku yàlla buur ba boole xaadimu rasool ku yàlla buur bi boole xaadimu rasool war naa sant boroomam saxoo ko yàlla ku yàlla buur bi boole xaadimu rasul war nga sant sa borom saxoo ko yàlla xanaa xamoo yow du ku mu neex nga ne aslamtu nafsi Sëriñ Bàmba rekk lay soob mu wala mu wala yàlla xanaa xamoo dugg mu neex nga ne aslamtu nafsi sëriñ bi rek lay soob mu woo la yàlla rabbul karim mooy ki koy tànnalu nitam ñamu na ma àndal ba jinaani yàlla muhammad ibni abdillahi yow xanaa dooma wayal xaadim rasulillahi jëwriñ ba yàlla sëriñ bi danaa la way lu tee ba duma la way xadimu sa jëf ci nun wër na ñëpp wër na ñëpp leer na yàlla sëriñ Tuuba Mbàkke danaa la way lu tee ba duma la way xadimu ngir yaa ma saf te yaa ne ci xol bi yàlla xadim rasool danaa la way lu tee ba duma la way xadimu ngir yaa nu doy ba nga doyee laaw yàlla sëriñ bi danaa la way lu tee ba duma la way xadimu ngir yaa nu doy ba nga doyee nabi yàlla xaadim rasool saabatu rasool yow bàllee sax yow yaa di seen dëkk saaba yi bu la rasoolu bëggee nu bëgg la yàlla te yow Sëriñ Tuubaa ku la bëgg buur bëgg ko yàlla yonent bi bëgg ko mu texe faw yàlla xoolul xiin inda jinaani laay say way la ñuy wayantoo bil xaq yàlla rijaalu lay ñoom ñëpp xam nañ la fa diiwaan imaamu awliyaay laay yàlla samay xalima samay xalima Sëriñ Tuuba irsaalaw taala du la mooy yaa ko moom soppe bi yàllaaw samay xalima sëriñ Tuba samay xalima du la mooy yaay soppe bi yaa
sëriñ Cheikh dafa wax li muy wax kenn waxu ko nañ ko teral ngir sëriñ Tuba moo tàmbali lii ñaari junne bi sëriñ bi nee na ku ko jox ga nga gis sëriñ Baara mi ngi ni moo ko wax na ñëpp jóg fekk ko fii jóg leen murid yi sëriñ Tuba ko moom du dëgg lu waaye yor sëriñ Saliou ko moom fekk leen ko fii xaadim may wax ci xaadim lu waaye yor bëgg mu yokk rek sëriñ bi joxe na ndigal ma ne ma ne seetaan amut ci gars yi yëngu leen ku nekk poos yi sëriñ Tuba def na ci dara du dëgg lu waaye yor rek sëriñ Tuba ko moom sëriñ Cheikh Marème mooy njëkk daanu ma nga ne génn ci biir sëriñ bi aam xaadim képp ku ñëw rek yàlla nga gisee Serigne Saliou yomal xiyaam de ku toog rek jàppoo ne ci nga ci nga yërmande Serigne Saliou xaadim may wax ci xaadim murid yi bu ñu bàyyee joxe àddiya day mel ni murid yi dañuy nay murid du nay Serigne Touba la li muy wax kenn mësu ko wax xaadim ma koy wax lu waay yor rek laajuñ kenn dara forcé wuñ kenn lu waay yor ngir jëmmi sëñ Tuubaa te yéene ko na ñëw ndigal la ëpp doole yoonu murit ci ndigal lay dox xaadim kebe da nga dund lu la soob addee Serigne
samay Saliou xalima xaadim samay xalima xaadim insaala du la mooy du la mooy yaa ko moom soppe bi soppe bi yàlla Serigne Touba man su ma bëggee dama jël xalima di la way di la way ndax yaay xalili habibi yàlla saa yu ma la wayee yëg ci man lu ma dul lu ma dul mën a wax saa yu ma la wayee sëriñ bi yëg ci man lu ma dul lu ma dul mën a wax ci mbégte yàlla borom Tuuba njaareem borom daaru salaam borom daaru xaliimi woonaa la yàllaaw borom Tuuba ak njaareem borom daarul manaan borom daarul xudus man way naa la yàllaaw borom Touba ak njaareem borom daarul manaan borom daaru yëpp sax ak daari yàlla mu di Mbàkke baara am nga nuuru jalaal am nga nuuru jamaal min rabbi yàlla soxlu rafaa Modou Fall Sereer Njaay ku sopp maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Modou Fall Sereer Njaay maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Modou Fall Seer Njaay ku sopp maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall déglul ma wax la déglul ma wax la waxi maam Cheikh Ibrahima Fall ma Fall ma Fall te diggam ak Seexu Bamba Seexu Bamba Seexu Bamba nga xam ne Ibra Fall Ibra Fall mooy boromal Cheikh Ibra Fall nee na sama ruugi gëm na Cheikh Bamba lu mat junni bi at wóor na yàlla buur baa te kat booba suñ borom bindu lool maam aadama sakkantumaak di bindu doomi aadama Cheikh Ibra Fall dellu na déegub laa ñaar baleer ga jolle asamaaw foofa laa jaar Cheikh Ibra Fall moo tax ba Serigne Touba dëkk njaareem leeram nga wër bawal ñu di ko yéem faal sëriñ Moussa Kess Cheikh Ibra Fall dane ma Moussa ma ne ko faal mu ne ma seen jant taxul nga di ko laal dafa nii nu màggal baabul muridiin Moussa Ka nee na Cheikh Ibra da ko ne Moussa mu ne ko Fall mu ne ko seen jant taxul nga di ko laal bari na ku toog Cheikh Bamba toog mu di la xool nga di ko xool te gisoo ko Cheikh Ibra Fall ne man dong maa xool Cheikh Bamba jébbalu naa mooy sébbalu naa bis bu tawee bul jekki naa noppalu naa Cheikh Ibra Faal ne maa njëkk a jébbuli diraam di fon loxoom di ca sujjóot maa ko xewal ci jamonoom Seex Ibra Faal saqal kawar di la xasaayu tey liggéey maa ko xewal ci jamonoom ba ñëpp naan ma cey Seex Ibra Faal keroog la woolu Seex Adama Guèye wax ko ci man ay léeb muy wolof yu rëy Cheikh Ibra Fall mooy xobu xël ci lii ma jël te xobu xël xajul ci gi ñu moog teef Cheikh Ibra Fall jaaraama Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall ku topp daa béy maam say njaay jërëgën jëf jërëgën jëf jërëgën jëf yàlla ñu ko teewe ay déwén yu bari guddi na oqal bukaaw ala bi ma jooy fi sëriñ saali ngir fooxane maamam sëriñ saali wu dem na jinaala oqal bukaaw ala bi ma jooy fi sëriñ saali ngir fa xonay maamam sëriñ Saaliw dem na jinaana tabkil alaa di alaa bin ma jooy la ko man ma samawaati Seex Saalix dem na jinaana bandeli tubaay am ngeen gan gu rëy te tëddee jigéen huur lay ni yaa koy teeroo kiriwaala fekk na baay ba Tuuba kër ga Bamba xoroom mboolem di diine yëpp seen kër yaa ngi fa kiriwaala yónneen baa ngi koy teeru moog saabaam ya kulluhumoo yónneen ba naa ko lagal te teen napp lu jil jinaala sëriñ saali buur yàlla laa ko jaarale ci sa njoowaan ya ñu jiinal la yonen ba naa gis na ci diina ji lu rëy ñu bil ji naa la
maa ngi jégalu ndax sagaru dong rek la waaye nag dong bu suñ tuwaa defar la di samp suñ mbirum suwaa maa ngi ñaan ci jëmm sëriñ tuwaa yéen ñi nag xamu leen ma waaye ñi di jàng moom xam nan ma maa ngi ñaan ci jëmmi seexul xadim barkeb seex Mudu Musaa mi nga xam ne man awma lu dul moom moom rek a ma ñor tey lu ma ci ñaan moo am nag barke ahmadul xadim fajar fajar si fekk na te kenn xamut ci lu ma fekkoon kenn xamut ci lu mu fekk gaa yi dama bëgg ngeen fekk ko fii ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ké- képp ku ma jox addi sëriñ Tuubaa ma jox ko ko lépp lépp loo ci di sëriñ Tuubaa dana ko faj man daal loolu laa xam ku mu doy jox ma ku mu doyut baal sëñ Mbàkke daal loolu la xam loolu la wax barki xaadimal Mustafaa lu ma waaye jox loo ca fas mu nangu barki xaadimu rasul ñëw leen jox ma ma jox ko ngir jëmmi sëriñ Tuubaa jox leen ma ma jox ko ngir suñ tuwaa lu ci waaye fas te nanguur bu demee ne boo ma gisee nee ma loolu amul lu ci waaye fas mun mu am barke Ahmadul Xadim xool leen ma te xam ma rek
jërëgeen jëf mbooloo mi yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bari ah bàyyi leen ma bàyyi leen ma bàyyi leen ma jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf soxna si jërëjëf soxna si jërëjëf jërëjëf ah mbooloo mi mbooloo mi
waaw léegi ku ne xam na ni njàng mi neex na waaye nañu maase ci dal rek tuuti ndax wax dëgg yàlla dañuy barkeelu rek wax dëgg yàlla waaye ku ne xam ne njàng mi doy na waar fii mu toll kon bu ñu toppee ci li ngeen bëgg rek ñi ci des daanaka boo xoolee duñ jàng kon dañ koy déglu moom mu sànni ay kàddu rek jàng ci maam jaara bi tuuti ñu jox ko wax dëgg yàlla ñi ci des waaye bu ñëpp waxandoo rek doo xam ne muy wax bisimilah.
mbooloo mi jërë ngeen jëf doy na sëkk maa ngi nuyu bu baax kilifa yi fi teew maa ngi nuyu bu baax sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne yàlla dogal na muy kilifa ak bis bi di di sama xarit lool di jëmm ju baax di jëmm ju ma fonk lool ci ci koor gi rek gisante nañu te yàlla dogal moom ma woo ma taal sama oto dem ba ci moom mu defal ma ay teraanga yu yaato yaatu boobu ba léegi walla daaw ba ba léegi waxtu wu nekk mi ngi nuy jàpp di def ci noonu ay teraanga te mënoon na ne sëtu Sëñ Tuubaa la taalibe rek leen sëq ak moom diggante taalibe ak sëriñ di ko ñaanal bu baax suñ borom jàppale ko bu baax te taxaw ko ak yeneen i yéene yu bare bari yoo xam ne nisar na ko ci suñu jëmm ji te Sëñ Tuubaa rek waral ko loolu nag li tax nu wax ko mooy dan ko bëgg a xamal ne rek nii munu jàppe noonu xam nañ ko te jàppe nañ ko noonu ndax sëriñ bi moom boole na loo ci taalibe te sëñ Tuubaa defal nañu li nu tollool alhamdulilah ñëw na sunu menn moroom wax dëgg yàlla waaye bu ma ko jukkee noonu rek ndax ku ne defal na ma teraanga ko wax ne kenn xamu leen waaye su ma ko jukkee rek li muy sëtu sëñ Tuubaa moo tax te mënoon na ko bañ a def mënoon na maa ko war a jox addiya kon yàlla na ko yàlla fay yàlla barkeel la bu baax àggale sa yéen yëpp di nuyu sëriñ Mbàkke murit moom it bu baax moom it ku bëgg sëñ Tuubaa la loolu tax na it ma bëgg ko bu baax a baax ngir sëriñ bi rekk la nu am di nuyu bu baax it kii mu bokkal wenn way jur sëriñ sëriñ Seex mi moom itam maa ngi koy siyaare bu baax moom itam sama wëllëre la ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp di nuyu sëriñ ak saa sàmm moom it di ko ñaanal moo xam li muy sàkku ci xasida yi wala ci lislaam bi lépp yàlla na ko àggale defe ko ni mu ko bëggee di nuyu soxna Penda sunu wayjur la sunu xarit la di nuyu soxna Faama Njaay moom it kasaalika ak sëñ Moustapha Kan ak sëñ Mor Masamba sëñ Mouhamadou Mamoun Dieng sëñ Ibrahima Diop ak sëriñ Njawme ak sëñ àll kan ak mboolem jànkat yi fi teew yëpp ak sëriñ Cheikh Mbacke ja ak bàyyi Isma Jum sunu wajur ak mbokk yi fi daje yëpp soxna Penn noonu ma ko waxee noonu la demee sëñ Tuubaa moo nu boole mu jàpp ma lool nu itam nu jàpp ko ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla taxaw ko fu mu bëgg àgg ma àgg fa. di nuyu soxna Xadi Coon sunu wajur la di fàttaliku sunu maam ja yàlla na yàlla jéggal ko te tàbbal ko àjjana soxna Xadi yàlla na yàgg jiite bis bi. yàgg ko ànd ak ak njabootam yëpp muy ajaa ay doomam ak i goroom ak bokk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm waxtu wi moo xat te itam loo bokk ak ñëpp te jànkat yaa ngi toog doy na sëkk kon yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bari di nuyu sëñ Thierno Diop moom it def na lu rafet bàyyi ay yitteem yëpp ñëw ngir jàppale soxna yi ci bis bi kon yàlla na ko yàlla taxaw moom it te fay ko te jàppale ko bu baax ku ma fàtte rek nag ma balaq bu ma sañoon du ma fàtte kenn di nuyu sëñ Jaase mii di jàng alxuraan moom it ku baax la te sama xarit la te nit ku am solo la moom it alxuraan ji mi ngi koy jàng njàngin wu am solo moom ak magam ak abbi ñang sëñ abbi ñang bu Kaolack ñoom ñëpp ñu ngi fi maa ngi leen di ziara jërë ngeen jëf.
waaw nu